jaajëfal nañ leen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV ñu daalaat leen ci xibaar ñu wax ci lu ñeel eh, kii di eh, préfet bu dakaar eh, ki nga xam seen moo di gouverneur bu dakaar moom nag daal di nay génne ab décret ni ki tey jii di xam leen nag kat daal di nay interdit ni tey jii bu 18h jotee ba li nga xamante ne moom moo di le 18 bi kenn kat dootul dawal li nga xamante ne si Euh, moom moo di moto Jakarta ak yu ci aju lu dul nekkat képp koo xam ne euh, dafa war a dem day jël oto lool nag nekk loo xam ne kii di préfet bu Dakar daal dina koy yëkkati. Euh, nekk loo xamante ne si ne décision la boo xam ne décision bu jaaxal ñu bëree bëri la waaye itam ñu bëri di posé wu question lan la ñuy waajal bay interdire yooyu nga xam ne. ñu bëree bëri jàpp nañ ne ci la ñuy daanee seen doole waaye itam moom kat moom la ñuy yor ngir di ci euh, surtout lawu am ñoo xam si ne ñu ngi koy naqarlu ci jamono ji Euh, di wax ne kat am na ci di décision yoo xamante ne si ne dañ ko war a jëlaat ndaxte kat lii di politique euh, bu ñuy politique dañuy xam ne dañuy politique waaye itam war ñoo jël euh, di sacrifier li nga xamante ne si ne moom mooy ay xëyi ndaw ñi di ko ngir politique loolu nag nekk loo xam ne moo nekk réaction yu bëree bëri ñu àddu ci leneen lu ñeel li nga xamante ne si moom moo di kii di ki nga xam si ne moo di procureur Amady Diouf mi nga xam ne ñu bëree bëri jàpp nañ ne moom mooy euh, juge boobu les dossiers nga xamante ne euh, war nañ ko amal procès bi dox ci diggante Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko ñu bëree bëri euh, rawatina ci ay avocat ñi ngi xamle ne kii di Amady Diouf mënta juge boobu les dossiers waaye itam ñu bëri it jàpp ne dañuy manipuler nit ñi loole waral duñ ci sukkandiku benn yoon ginnaaw ba nga xam si ne am na avocat yu génn di ci àddu loolu nag nekk loo xam ne Euh, daal di nañ koy xamle ne kat beneen juge la ñuy daal di jël mu daal di euh, daal di àtte boobule dossier waaye euh, kii di Amady Diouf mënu ko jugé ndaxte kat position bi mu nekk mooy ko mu jugé boobule dossier bi dox ci kii di Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne si ne moom moo di Mame Mbaye Niang loolu nag nekk loo xam ne. daal di nañ ci àddu ñu bëree bëri ci ay avocats yi daal nañ ci àddu waaye itam. Euh, ñu jeexalee ko ci ëllëgu procès bi nga xamante ne si ne namm nañ ko amal te ku nekk xam na ne euh, boobee la procès daal di nañ koy àtte woon waaye itam ba daal di daan kii di Ousmane Sonko ay daan yoo xam ne euh, daal di nañ koy tegoon léegi nag ñu bëree bëri di wax ne. Euh, daan yooyu bu fekkente ne kër dañoo jëlaat yeneen euh, atte di ko teg ci kawam ñu bëree bëri kon dañuy daal di xam ne euh, politique moom moo ko waral waaye itam lan mooy ëllëgu moomeelam mbir ak lan moo ci mën a tukkee comme ay conséquences loolu nag nekk loo xam ne ñu bëree bëri daal nañ ci àddu waaye itam tension bi daal nay commencé jug te agguñ ci procès bi loolu nag ñu bëree bëri moom la ñuy posé wu question lan mooy ëllëgu procès bi buñ jëlee décision boo xam ne ñu bëree bëri. Euh, dañuy jàpp ne li nga xamante ne si ne moom moo ko waral attewaat bi du dara lu euh, fexe naxasal lii di candidature bu Ousmane Sonko waaye ñu bëri daal nañuy taxaw daal di takku bañ koo nangu benn yoon loolu nag bu fekkente ne euh, nit ñi dañuy opposé wu mën naa indi jëye ci réew mi loolu nag nekk ay réaction yu bëree bëri wala mbokk ñu leen jox dig dajee ci yeneen xibaar leen wax na ngeen abonné te activé cloche de notification bi pour bépp vidéo bu dugal ngeen bokk ci koy njëkk a jot